mooy que les autorités administratives en l'occurrence le sous-préfet le préfet et le gouverneur que ñu xamni force de l'ordre mom son def nañ sen rôle ñomit nañ def sen rôle moy ñu diligenter les PV jëlé ko sous-préfecture yóbbu ko préfecture dans la légalité jëlé ko préfecture yóbbu ko gouvernance dans la légalité yóbbu ko tribunal ba ñu mëna xam exactement PV bu ci nek la ca nek lool la ñuy ñaan autorités administratives yi force de l'ordre yi moom def nañ sen rôle fii moom ku fi ñëw xam ne wax dëgg yàlla li xewoon législative yi passé mënatu fay xew mhm. parce que wax dëgg yàlla fii am na sécurité sécurité boobu na la doon ñaan léegi na vote bi tàmbali nañ ko ci jàmm tàmbali nañ ko ci dal yàlla na yegg ci jàmm yegg ci dal ba kuy gagné gagné te jàpp na ne kii gagné fii ak fépp ci Touba ak ci Sénégal mooy Idrissa Seck mi nga xam moo jiite coalition Idy 2019 loolu lañ ah. jàpp te loolu lañ gëmit nag donc bu ñu la déggee mel ca ngoon nga bu ngoon jotee man maa ngi woo tous les responsables qui dans la coalition Idy 2019 bu ngoon jotee bu ci kenn jege bureau de vote yi na ñëpp dem ca walla toog bàyyi ñu compte xob yi jàpp nañu te loolu bu ñu koy defit nag nan ko maasale defal ko ñëpp ñu maasale ko defal ko ñëpp challenge waaw loolu moom c'est initiative de de de la coalition Idy

Euh, parce que c'est une faille de la part de la coalition. Mais en tout cas, euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est que les votes se fassent dans les règles de l'art, que le décompte se fasse dans les règles de l'art et que véritablement le résultat qui va sortir des urnes sera le vrai